ko ak mbokk bu ci kaw rek mën na yëg. waaw boobu rek mën na yëg waaw. sama gars yi yéen a may dégg wala déggu leen. yaay sunu baabu laa yaay sunu baabu laa baabu mooy sunu baabu laay. baabu laahi baabu jannati baabu laay baabu jannati baabu laahi baabu jannati baabu laa baabu jannati waaw. gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur sant l'ensemble zone 7B de Grand Yoff. mi calmini won onon bandiraɓe kalpularen on jarama allah jarama e min heeɓi combat gada janggo dimanche ñagane men allah dokku men victoire belɗo e dow makko e dow cukalel ngel jeen kayre minen noon men gayni ñun moom wax dëgg yàlla yàlla dem na pare nañu noppi nañu di nuyu Grand Yoff yëpp kenn euh, surtout ñi nga xamante ni mooy ñi nga gis ni ñu fi nekk ñu may àndal ñëpp bàyyiwuma kenn ñoom Tabalou ñoom Zak ñoom Manou ah, ñoom euh, Aziz ñoom Ibrahima ah, ñëpp bale bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp ah, ñoom Alassane ñoom Gandi Gandi Gall sama doom bàyyiwuma kenn maa ngi leen nuyu maa ngi kontaan ci taxawaay bu baax a baax a baax pour juum ñoom di bàyyiwuma kenn daal képp koo xamante ni yaa ngi fi su ma la limee su ma la limul xamal ni euh, maa ngi kontaan ci yow bu baax a baax di nuyu aussi service d'ordre bi nga xamante ni mu ngi fi surtout loolu muy la police la police di nuyu police yi bu leen xamal ni police yi ak ñoom suñu ay noon ñoom suñu ay mag lañu suñu ay rax lañu euh, suñu ay nijaay lañu comprendre que seen liggéey rek la ñuy def mm. gars yi xamee ko noonu ñu jox leen cër bi ñu moom maanaam du jëmm ji mais tenue bi mu sol la ñuy respecté parce que tenue bi mooy couverture Sénégal ah mooy ñuy respecté comprendre nga ñoom ñooy ñoo ñuy indil respect kon donc foog ñu jox leen cër ñun dañ leen manque de respect xam ne ñun la ñuy liggéeyal di nuyu aussi commissaire commissaire u Grand Yoff bi malgré xamante wuñu mais ñu ngi koy nuyu ci détaché bi mu def gars yi ñu ñëw taxaw ci bés bi di nuyu ñëpp di euh, wax ni euh, waa Grand Yoff mhm. euh, surtout njaago yi joolaa yi séeréer yi bambara yi pëpeen yi ñaan yi ñëpp waa Koungheul waa Makk Yop waa Missirah waa Port Ndramé waa Gambie bi ma nekkoon euh, bàyyiwuma kenn waa Makk Koulibanta waa Casamance Guinée ñëpp bàyyiwuñu kenn waalo waalo yi xam nga ñëpp ñu ngi sàkku ñaan ci ñëpp di leen sant ngeen xam ngeen jàppale ñu parce que làmb ji jege si na ba pare di wax les autorités li ma leen doon waxoon rek li ma leen doon wax rek laa leen di waxaat euh, nañu jàppale population de Grand Yoff population bi li mu soxla c'est très facile mooy nañ ñu ay billets gars yi dem seetaan yi mbër bi moom mbër bi wax dëgg yàlla mi sant yàlla lépp li ko làmb ji fay mi ngi koy defaat ci làmb ji comprendre nga eh, kon léegi li leen di wax rek mooy ngeen jàppale ñu may ñu ay billets xam nga jàppale ci eh, regroupement ñu toggal gars yi ñu bégee xam nga dem eh, mu nekk fête fête boo xam ne Grand Yoff lay doon parce que Grand moo war a feetu kon donc feetu Grand bu ñu ko yàqal naa feet bi lu mu lu mu neex neex neex lu ñu am ñun dañ koy féetoo ñun mën nañ noosee lu ne lu ñu am dañ koy noosee kon donc lépp lépp lépp lépp lu ci doomu Grand Yoff jàpp rek ah euh, lay dooleel waxuñu nag ñi nga xamante ni dañuy daw laaxu di dem di jàppale mbëru jàmbur man Zarko Grand Yoff ma gënal téeméeri junni doomu aadama ak foo nekk ma Grand Yoff laa dëkk dëkkuma parcelle dëkkuma géej waaye dëkkuma Pikine dëkkuma Médina man doomu Grand Yoff laa man Grand Yoff laay tiitaroo te boo xoolee retour ko ba léegi si grand dafa neex. grand dafa am jàmm. te day gën a neex mbëri ñi ngi bëri ñi ngi daan population euh, maanaam image dëkk bi ñu ngi koy yóbbu ci beneen niveau. Mhm. ñun loolu kese moo ñu ci intéressé. leneen lu ñuy doomu aadama yi nga xamante ni suñu diggante ñun ak yow la kooku ñun ak yow la mais li nga xamante ni yow donc euh, yëpp grand la. na ci doomu Grand yëpp jàpp bàyyiwuñu kenn nañ jëndal jeunesse bi billet ñu dem stade dem seetaani làmb ji ñu bëre man ak euh, man ak sama adversaire li ma koy wax moom lu leer la lu gàtt xam naa ni moom bu ñu yeewoo suba teel bi lépp moom mooy borom xaw ma nag mën na fecc wala mënul fecc waaye temps yi ay naa trop. Hmm. trop mais euh, bàyyi ma eggali rek bu ma dagg. Euh, buy suba teel bu yeewoo ba ñu def lépp ba mu nekki ba pare bu ñu demee stade. bu ñu demee stade moom lu ko dalee une heure. Hmm. ba 17 amaana ni mën naa ni moom mooy borom. man soxla wu loolu hmm. ne. man soxla la laa soxla. Hmm. entre 17 heures jëm may borom. léegi la ñu rek Sarko dem jëli jën kay jën ma ne ma xool ko ak état war na defal contact ba os ci combat ma ne ko est-ce que état bii ma yor mën na yëngal Zarko mi ne ma yëngal na sax ku dul Zarko ma laaj ko jàppante bi nag mi ne maa ko ndox tu bëri ndox tu bëri bi ci jën kay rek est-ce que dañu gis ni dañu seetlu ni dañ def benn remarque Zarko saa bu jàppee war a bëri il faut mu foo ba pare doo ko bëri est-ce que wóor na nga jàppante jën kay rek ak ndox tu bëri bi ci nekk ci moom di foo di bëri yow ñu ko posé question boobu loolu mën a tontu sax yow sax gëmoo ko. ndax lan ah. parce que xam nga ni c'est pas vrai yow rek gëmuloo loolu. Zarko ngay waxal la. wallaahi lazim yàlla seedeel ni yow mi ko posé question boobu ak li mu la tontu yow xam nga moom gëmul loolu. Eh, kooku waxu mbër la rek boo xamante ni xam xale la nekk ci yoon dañ ko koy nangul mais buñ arbitre sifflé. bu tëral nga ko baax ak da nga critique. <laughs> o mbaga ndeytirrim mo anndi kagaɗo o yettima billahi wallahi taala buñu jaban damanilat koko ɗum jabante day ñëw daanu dem ñibbi amul lum fay jabante ak lum fay conditionné ak moom amu ko ci mhm. day dalal si xelu si bon terrain bi rek mais moom amu ko loolu loolu noonu amu ko fa yooyu li di wax maa ko am mais moom amu fa loolu. fii am fa dara moom moom day ñëw rek daanu ñibbi. Hmm. yéen ñii yéen ñii taxaw fii yéen ñëpp. yéen ñëpp bi. sama kër ngeen di dawaat ñëw. Babacar. après le combat jën kay de Zargo sama kër ngeen di njëkkante. Zargo jën kay nee na. yéen ñaar xamante ngeen bu baax nee na yéen a ne ndewoon olympique mu nekk booy yàgg nga ko fa fekk di ko jéem a nogatu waaye musul jàll. nee na à chaque fois da nga doon ñëw di ko jéem a peser di ko tester di ko jéem a noggatu waaye musul jàll nee na xam nga ko bu baax a baax a baax te jour yi dina la wan ne moo la dàq bëre te dina la daan. non xam nga mooy li ñuy wax rek waxu xale la. waaw waxu mbër lu ko waa mais loolu loolu. nee na yàgg nga ko peese de. wax bu yàqu la yow man du ma peese doomu aadama. Mm. Eh, man ragal ma fu ma jëm man du ma peese mbindeef. Mm-hmm. Eh, man nit ñoo yow da nga am baxan tànk loxo nopp baxan baat bët gémmiñ rek li si des man gi jënti wu ma ko yàlla seede na loolu. billaay. Mm. mais Zarko dafa am solo gaa boo indiwoon contre en défense. Mm-hmm. muy contre te loolu dig waa gannaaw yow. non kii moom dama koy tabloo. di tabloo xam nga topp su ma tax topp boobu laa koy may wallaahi azim yàlla seedal na loolu di sant tamit nag mbëru Grand yëpp euh, baari baari hmm. euh, ñoom booy Grand hmm. ñu ñëw ñëpp ñu ma gis ak ñu ma gisul hmm. parce que xam naa ne ñoom ñëpp ay doomu Grand Yoff xam naa ne ñoom ñëpp ndam rek la ñu yéene sax ak mu mën di nekk ñu euh, baari baari ak boîte vocale njool waalo njool waalo Njool Waalo ñëpp Njool Waalo waaw sa doom écurie la sa doom waaw. waaw sama écurie la nekk instant bi maa ngi ci eh, mbër yi nga xamante ni nekk ñu écurie grand waaw di sant nga xam mbër yi nga xamante ni boo comme mu préciser ko mu gën a leer mbër yi nekkul écurie grand moo dañu jàpp ci ok dañu sant bu baax a baax a baax a baax hmm. di kontaan ci seen disponibilité ak seen teewaay di sant vraiment ñëw di sant écurie bi ñëpp l'ensemble zone di sant écurie grand mbër yi fa nekk yëpp ku euh, lim mm. suuf euh, entraîneur yi mbër yi xam euh, ñu ngi koy wax tey dirigeant yi. surtout président bi aussi Alioune Badara Kébé mu ngi kontaan bu baax a baax. pro Kébé kooku jàmbaar la bu baax a baax ci muy jàppee ci. pro Kébé ah. ak muy jàppee ci kii. di sant aussi tamit Père Laye Père Laye président Afar. koy sant bu baax a baax di kontaan ci moom ci décoration bu ñu décoré di bu baax a baax. Euh, ah ma fi yaay ma fi yaay grand Bella ñu koy sant bu baax a baax grand Ili président maanaam parrain bi parrain waaw parrain bi ñu ngi bu baax a baax ci moom grand Idrissa Seck DG Carrière kontaan nañ ci moom nee na dinañu jëndal ay billets ñu koy xaar mu ñëw ak képp madame Ba madame Ba ñu koy sant bu baax a baax Angèle Fall. di di di ñaanal aussi suñu gayeen suñu donc requin yàlla defal ko ndam sedd guy. dafa am combat samedi. amul combat samedi. ñu koy soog a am samedi. ak Jelmani mbër mbër Jelmani. ak barka tamit ak barka ñu koy ñaanal ndam ak abo. abo ñu koy ñu kontaan bu baax a baax ci moom Malick aussi Malick Mindié ñu koy ñaanal tamit. gars dañoo am ay questions de. jelmaane jelmaane xale yi nga xamante ne bu paree ci biir xam nañ ndax Zarko gis nañ ko ko xale yi képp ku ëllëg may la loxo mais ndax Zarko pare na nag mettre fin ci li nga xamante ne mooy xale yi dugg ci pare ci jël kay la fan la Zarko jëm dugg ci VIP waaw mais xam nga mooy li may wax rek ñun moom yàlla def nañu ñu ñëwee li ñu waxoon ba tey dugal ci dañuy liggéey liggéey te eh, boo naree toog di xaar xale di xaar mag yi di ko weesu mag yi naan la gudd naa gudd na donc yow da ngay déglu waaye ci xale yi nga xam ne mag yi dañ leen ragal. ñu dama xam parce que loolu football combat la ñu réew foofu mu ñëwee ba léegi kon donc xale yi te ñi ngay wax ñii xale yi. ñoom hmm. ñooy téye di làmb si ñi ngay wax mag ñoom ñoom cinquante sept ci làmb jeexal nañ de jeexal nañ ma kon donc ñii nga jël leen Zarko mais man question ma la bëgg a dugal Zarko bala ngay sant question. Bayli Ba Zarko euh, li nga Bayli Ba ah. Mamadou Amadou Ba Malick ah. Momo Papino Papino ah, grand Papis Papis Marcelin Padoua euh, Momo Marcelin Padoua ñun ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax Mamour Thiam donc ñu koy sant bu baax a baax. ma fi yaay ma fi yaay ma fi yaay. waaw loolu question bi dama laaj kër Zallo mu ne ma Zarko ci li ma gis am na lu muy wut ci jën kayre. ci maanaam ni ngay doxalee ak ñoom boobu ba tey. foo leen fekk mooy stress bi provoqué jàppal bàyyi Zall ne ma Zarko daa am lu muy wut te buñ ko ko mayee. mën na leen def lu doy waar parce que Zarko dafa mën a bëri Zall loo mu wax loolu. booy kayri di ma laaj ko mu ne ma ci côté mental jéem ak Zarko bokkuñu mental. mu ne jiina la man daal fukki na juróom doole bokk lewu ngeen ko yéen ñaar te bëre ba arbitre sublewul moo tere nga dem su ndax boo delul ginnaaw da ngay teel a daal Sall sama consultant na nga woo bëgg Fallou bëgg Fallou moom kenn ci mooy di taal. waaw mais Sall loolu Sall loolu wax luy luy yàqal. non pas jéem. lu nga wax luy yàqal papa ji. Sall loolu ko. walaay la ni. doo tontu ci loolu. nice kay. loolu la wax. alpulaar alpulaar si ñeneen ñeneen yotti ah koko mbatten doon ko min mbattalum ko min woni baagal boy sa jagi min jagal sa jagaani min jagal sa ari min an sa alaani min waaw xaaral ma toog yow doo xool am na ay jàllu ak sàmm yi jàllu nële mais Zarko voilà waaw waaw waaw waaw waaw estafari adal min to droit o dato banda min to tudul droit estafari adal min to droit o e ta grand yo donc min dam na min parce que min yitati wala dak yagare mbaɗa bee ɗumɓe toppanma hen e on saale inchallah ma yettii ñempal dug nan ci lamb yi woñu ko ci olof ñempal alpulaar pël sak sak sak lon ko sak tourne ko tourne wat tourne wat da laxu da laxu e mbimami min ne gonɗomi espagne noon nganndiri min simaariɗo mami hoore am waade am waade sara ɗum ɗon min mi yiyaade ɗum fof ɗum ɗon wona heppu maa war de incha allah jërë ngeen maa ngi daan maa siisu xaaral di ko daal. Sarko xale bu ñu soxla wóotal waaw. moom bu wax dëgg la jeexal na ko noos de. tey Pall Sarko. Sarko. Sarko. waaw waaw. ah Babacar Babacar muy pël pël pël jox jox ko mu yor jox ko mu yor. pël a ngi nii. pël bu rafet pël bu waxal. sa mbokk am laab. raak bëgg raak raak bañ raak raak. nee na ndax pare nga pour jàkkaarloo bëgg raak raak bañ raak raak. doxal lamb waaw waaw lamb. non na dem si lamb demal lamb. lamb waxal ci kaw. ah lamb lan. asalaamaaleykum salaamaaleykum. ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ma sow ñëpp di ma sow champion bi. nga gaaw rek gaaw. mais dëgg-dëgg Zarko champion la parce que man man damay saraan sport bi bëgg ko trop. moo gis nga def retour boo xamante ni ñëpp si booyee ko ko yemale te bu jëloo fi booy bu tàngul booy yëpp tàng mais kii nag dañuy wax ne moo gën a ës mais tal na si kàkk goo xamante ni il faut na leeral loolu waxtaanoo ba xam xale bi day am retour wala du am retour ndax Zarko. wala gars yi xam ñu ne. bilaay lamb xoolal ku nekk si kaw lamb taxi bi mbokk oto ndaraan. merci te biscuit du dem si soos. c'est vrai ñaar lay may. leneen loo def si da nga koy indiwaat eh, drapeau lamb dama ne la xaru du naan poson kese. Ah, ah. xaru du ah. naan poson kese. bilaay wallaay. mais loo gis li may laaj bi noonu. dama lay bëgg a laaj. man buuse Makala damay gën a kii. dama ñëw pour dee. waaw ñaaw dee rafet dee. jàmbaar ni jox ko benn après ñu Babacar après ñu lamb lamb buñ la laajee bakkan sax teg ko waaw da ngay am ñaari bi boo bëggee dem ca kanam Zarko ñu ngi la gërëm taxawaay am na solo tey benn question laa am kenn ku nekk sa diggante ak Modou Lo nee nga doo bëri moom te Modou Lo ku ko ku dul Modou Lo da boo ko jàppee da koy caw Modou Lo di bëri roi des arènes wax digganteem ak Boy Niang bu Modou Lo daanee fas na téye roi te yow nee nga dafa fas yéene indi bi fii tey ban ban jàngat nga ñu mën a jox waaw ban ban ban ban tontu nga ñu. waaw. Ah, waaye déglu leen waay booy maa leen leen waxee tamit nekk leen ay nante waay. parce que yow ruube maa ngi yow. ma lay yéeg de. macha allah yow macha allah. sant ak jooy na doy na. loolu mooy bu presse am ko seetlu wala presse. waaw waaw ku presse bi taal nooy dawee presse bi. waaw dafa am dafa am dafa am mm-hmm. waaw. waaw waaw kay ko ko war a ku ci doon presse doo góor. kon Zarko xanaa gëmatul boppam ah. tàkk presse bi yàlla taal. wala nii wala ndaa wala sàmm wala jënd. comprendre mhm. pour man lii daan mbër. nekkul bu ma mënti daan. laa dëgg la laa dëgg la laa dëgg la yàlla moo fi nekk awaat donc yàlla ne liggéey nañu eh, te ne gëm nañu war nañu mën a may ndam bu neexee yàlla. bu neexee yàlla. laa dëgg la donc presse moom wax dëgg yàlla man moom parce que samay xarit samay samay gars yi samay. aw ma ci noonu quoi. faral ko ko bàyyi na maa ngi war daal maa ngi bu yàgg faral ko ci micro la benn benn micro la eh, maam baabu jannati nan eh, nga lépp ni yow gëm nga la may li nga sa àddina uh-huh. te doo ci sàcc gis ba ñaaw eh, ba ba joxeeb la ba kenn du la nga nga ci liggéey sa bopp ba ba teral ci ñëpp ñoo bëgg teral rek. Mm-hmm. pour man rek rafet moo ko war. dëgg la li gën a bon rek la loolu leneen li ci des moom la lépp lu waay mën di mm-hmm. a nga ni coow li bi ñuy coowee sotteeku soow jël gaal. waaw bu fekkente ni egg na ma fii. Ah. yàlla na ma jéem daal. ah gaal gi tiitoon na. bu ñu def yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp. tuur soo pap ñuy ñëw pap ñuy ñëw ne. Ah. bu ma yemee fii yàlla na ma jéem daal. looy tàggoo looy tàggoo. waaw. Euh, daal ñaari soxna la nag tamit daal daal. maa ngi yow yëpp journée nga doon def benn la. di sant sama rakk yëpp di sant sama yaay di sant sama waajur di gërëm sama maam bu baax a baax ak ñoom ñëpp ñoo xamante ni ñoo jàpp ci DG carrière bi koy sant bu baax a baax loolu loolu bi nga xamante ni moo yor saa bi ñu koy sant bu baax a baax gannaaw bu la kontaan bu baax a baax ci moom mm. di kontaan ci sama booy Alpha eh, di kontaan ci moom bu baax a baax vraiment ren bi eh, di sant ñëpp Pape Sall Sall Ngari Bolle Serigne Ndiaye eh, Ibou Laye Moulay promoteur di di di kontaan ci ñëpp Saliou euh, Saliou Mané nag nee na bëgg na combat. naka ah? la de waaw. Euh, Pape Seck Pape Seck di bu baax ci moom. di kontaan ci euh, président Afa Lay kontaan bu baax a baax ci ñoom. waa zone de captage nag si làmb ji nañu bokk ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo ñëpp képp ku dëkk Grand képp ku dëkk Grand Daaru Léona Cité Millionnaire Arafat Xaar euh, Doole Gangi Léona HLM Grand Yoff HLM Patte d'Oie ñëpp ñëpp ñëpp bàyyi ma kenn ñëpp ñëpp ñëpp bàyyi ma kenn di kontaan ci ci kontaan bi ci moom bu baax a baax day ñëw grand pour grand di kontaan bu baax a baax ci taxaw bu baax bi taxaw ah, di taxaw kontaan bu baax a baax. ah man gën naa ah, ma fi yaa ah, la di baare ñu ko taxaw. il le serpent Saliou Mané nee na boo paree pare na bu paree Saliou Mané pare na. di kontaan bu baax a baax ci. rendez-vous bi lan la. ASC Grand Yoff seen taxawaay di wax message bu am solo nag. autorité yi nga xamante ne ñu ngi biir Grand <laughs> encore une fois Cheikh Omar Anne commencé ko par yow. Khalifa Sall. Doudou Ka. Euh, Cheikh Bakhou. Euh, Adama Faye. Angel Fall. Badara Kébé. Bëgg Fallou. Mora Cissé. yéen ñëpp ñu ngi woo. pré euh, parrain bi tamit di Ibra Seck. ñu woo ngeen ñëw jëlal askan wi billet. sëñ Abo ñu ngi leen woo yéen ñu ma leen ñëpp woo ngeen ñëw jëndal askan wi billet ñu dem seetaan parce que yéen a ngi nii soxla ngeen dëkk bi ci askan bi ngeen di dugg biir Grand Yoff ngeen dugg kon dugg leen biir Grand Yoff yéen ñëpp ngeen jëndal population bi Grand Yoff ñu dem seetaan yi parce que ñëpp ku ci nekk am nga ñu la am na ñu la bëgg am na ñeneen ñu la bëggul ku ci am na koo àndal kon ñëw leen ngeen jëndal population de Grand Yoff bii seetaan di wax nag xam nga carrière ñu ngi koy ñu koy ñu ngi kontaan bu baax a wax ci moom ah. di masaw sama rakk bi ngolo di masaw sama rakk bi ngolo ci defet bu am di nuyu waa ñaay yëpp